يا حي يا قيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم Mindiss TV mi ngi waat euh, ba léegi fi nga xamante ne ni moom mooy ci euh, Touba di seeti nag ñi nga xamante ne ni nag euh, ñi ngi jëflante waaye itam di dox ci ndiggalu Serigne Touba li mu digle nag ci bés bi nga xamante ne ni moom mooy bésu màggal gi tey ñi ngi ci kër ki ñuy wax nag ku baax muy Bamba Sarr taalibe taalibe Serigne Touba diit koo xamante ne ni kii jëfee li Serigne Touba digle la koo xamante ne ni daal amaana lépp laa buñ ko mënoon tënk ci ay kàddu ko woy xolam woyof waaye itam koo xamante ne taaliba la jullit la boo xamante ne ni moom lañ fekk si tey ci këram ministre bi fekk si ko waaye tam nag eh, du ñàkk ay kàddu seede ci moom sëñ ñu ngi leen ñu ngi leen di fay ba mu bari di leen sant di leen gërëm di leen tadagal te di leen dalal seen kër te kon dal bi ko ko gis ak ni mu demee ak ni mu tëddee boo fi ñuy saxal dina la delloo ci ne ñi fi dëkk dañoo dëkk waaye dañoo dajewaat waa kon day féddaliwaat màggal waaye day nekkaat màggal ci biir màggal ndax daf ñuy delluwaat ci taarixu diggante Buur Sine ak Kumba Ndoofeen ak Serigne Touba bu mag ma waaw kon fii daal mun nañ ne Kër Bamba la mais mun nga jàpp ne dalu Sine gépp la. man maa ngi tudd Pape Cheikh Diouf mais sax d'habitude Fatick ñi ma gën a xam ci turu saltige lañ ma xam. Bamba dafa ànd ak papaam bu tudd Baye juuf mu ñëw service météo waaw Bamba ci ay at ñoo ko xaw mag mais yàlla dafa dogaloon génération yooyu dañ doon xamante di fréquenté wu ba amul conflit d'âge mu nekk koo xam ne aussi bi mu ñëwee Fatick ubbil na Fatick boppam dund Fatick ci loo xam ne mooy le moment le plus important ci dund doomu aadama waaw mu jàpp lool ñu jàpp lool te dara mosu ko pervertir dara mosu ko changer ba tax na Bamba képp ko ko xam xam nga ñu képp kuy suñ xarit xam nga bàmba waaw ñun bàmba doon nañ diir yu baree baree baree bari soo nga xam ne Touba mooy cosaanam ñu fiy tàmbali bi mu xamee ni Bamba fii mooy dalam fii mooy dëkkuwaayam te fii la ay waajuram nekk ñun ñii ku fi ne amoon na fooy dal amoon na ñoo doon jëflanteel waaye bi ñu demee ba xam ne dañ am nawle muy suñu wëllëre te ñu ànd ci ngor ànd ci teraanga ànd ti jinite ñu ne kon loolu yëpp dañ koy teg ci suuf jàpp ne bunt bi ñu war a liggéeyal Serigne Touba mooy buntu Bamba bi parce que góor jàpp ci góor mu jàpp ci góor ba mu yegg la parce que donte ñun ay sin sin lañ. ku nekk am na foo lonk waaye sansu màggal bi daf ñuy dajalewaat ci ne kenn képp moo am cër mooy sëriñ Touba moom la ñuy santale kon day mel ni nag bi foo ci làmb rek foofu day baax ba nga ne fii la gën a baaxee donc nag yëgal boobu ñu ci am ak xam-xam bi moo tax ñu jàpp ne màggal gi aajootul dem fenn lu dul fu ci waay mën a jóge loo am ñu dajale ko ñëw fii gën cee yëg suñu bopp ci suñu moomeel mun a séddoog moom loolu ba bu nga xam ne buñ fiy jóge ku ci nekk da ngay feesawaat xam-xam feesawaat teraanga feesewaat ak ndoolantan feesewaat doole ba boo fiy jóge di nga yëg loo xam ne dina la leer ne lépp loo fi mënoon am muy coono ak métit doo ko gis ndax dina am lu la ko jaral te loolu lumière d'attraction la yow mi koy yëg yaa ko mën a sentir mais mënoo ko sax transmettre sa làmmiñ man maa ngi tudd Pape Cheikh alias Saltigué jërëjëf Pape Cheikh kon nag euh, dégg ngeen ko kàddu yi la andi woon nag ci ay kàddu seede euh, ci ki nga xamante ne ni nag moom la ñu si tey euh, muy monsieur Bamba Sarr muy nag koo xamante ne ni muy taalibe waaye itam nag jeexut ba léegi parce que mbokk yi ñi ngi fi ay am di jàmmam ñi ngi fi am na ñu jógee fu nekk nag ci senegal ñëw nag bokk ak moom bésu Serigne Touba bi bokk ak moom bésu Xaadimu Rasul bi sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay ñu ngi lay fay. ñu ngi lay fay man Mamadou Diouf Cissé laa tudd. sarsara la sanaa'i wardiwaanin bilaa sifatin musxaadali min bani daymaan ansaara lillaahi kulli ladaa abaari makrumatan min arsaal ni wofi ajamma man saara ina lasiina ilaa sarsaara xat خصدوح سارة فارخة فارخة دار الأنصار يلا بابا سار سما خريط لا yàlla dafa def ne euh, Dakar la ñu xamante dans le cadre du travail ëpp na fukki at ak juróom donc depuis toujours ñooy ànd ci Dakar di seq liggéey di nekk tamit ay xarit yu yàgg donc euh, loolu moo waral sama teewaay fii tey et aussi euh, ak tamit pour màggal si bés bi aussi di feddali kóllëre sama diggante man ak Bamba Sarr waaw ak euh, ñi ma fi fekk ñëpp yéen waa Fatick yëpp vraiment loolu mooy sama diggante ak Bamba. ci jikko ju baax de man lii rek firndeel ni ko ndax da ngay seet waa Fatick pratiquement ñëpp ku si nekk am nga fooy dal waaye bàyyi nga sa dal ñëw fii ci dalam. da ngay seet waa koñam waa Pastef ASC am ñëpp tout moon monde ñëpp a ngi fi ñun ñii nga xamante ne nii ñun Dakar la ñu bàyyeekoo ñun ñëpp a ngi fi ci suba soo leen fi ñëwoon di ngeen fekk fii dafay fees dell ndax la majeure partie euh, ñëpp dem nañu parce que bi ñu añee ba pare la ñëpp yeeweeku ndax xam nga jot moo amatul moo amul mais li ma la ci mën di wax daal ci lu gàtt mooy que nit ku yaatu la nit ku mën seddoo la nit ku bëgg ay nit la nit koo xamante ni aussi ku fonk ay maanaam ay mbokkam ak i juróom ndax dañuy wax ne charité bien ordonnée ci tubaab commence par soi-même parce que ay mbokkam mu njëkk wax ne baax na ci ñoom mi ngi leen di jàppale mi ngi leen di dimbali jikko ju rafet la amee ñu nit aussi ay xaritam ñu gis ko seede ko fekk ko ay dëkkandoowam tamit ñu nekk ca Fatick ak dakaar gi mu dëkk ak Tëngéej ba mu dëkk ñëpp tamit seede ko fekk ko te di ko wax loolu moo taxoon loolu rek liñ ci mën a wax yaatu na baax na tabe na am na yërmande euh, fonk na nit fonk na doomu aadama man moom Mamadou Diop Cissé laa tudd. jërëjëf Mamadou Diop euh, Cissé moom nag euh, wax dëgg yàlla kaddu yi rafet na kaddu yi rafet na lool moom kaddu yooyu sax xam naa ne ñàkkut nañ gis nag ñenn ci ñi nga xamante ne ni nag ñoom ñoo di famille bi nañ gis ñenn ñoo xamante ne ñoom itam ci kër gi la ñu bokk waaye itam jege ko waaye wala wala wala sax ay xaritam ay jege ñaaleem sëriñ bi ñu ngi lay doon. bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf sant nañ yàlla bu baax maa ngi tudd Maguette Dieng dëkk Fatick. Bamba Sarr en fait mun naa wax ni ñun ay doomu ndey lañ ñoo bokk dëkk Fatick ba ñuy am ay fukki at ak ñaar jàpp fukki at ak ñett lañu yàlla boole. yàlla boole ñu ñu nekk Fatick ànd ànd bu rafet xam nga fukki at ak ñaar koy ànd ba léegi presque ay vingt cinq ans. yàlla boole la ak doomu aadama nga xam ni loolu du caaxaan kenn mësuñu dégg ci leen loo xamante ne ni lu ñaaw la yàlla boole ñu ñuy ànd ànd ngor ànd jullit euh, ñu seq jàmm ak salaam. Bamba luñ ko mën a xamal mooy jikko bu baax la am jikko bu rafet la am man personnellement ki ma nekkal lu tolloog fukk ñaar fukki at ak lu teg xamaluma ko leen lu bon xamaluma ko leen lu ñaaw nit la jàmbaar la jox na ñëpp cër. respecté na ay xaritam respecté na ay waajuram respecté na mboolem doomu aadama waaw nit la daal nit ku baax la waaw jërëjëf merci beaucoup waay. Euh, voilà kon euh, dégg ngeen ko kooku tamit euh, ay kàddu la andi woon ci moom ngir nag joxe ay kàddu seere soxna si ñëwel nii atia sëñ Pape Diop. nuyoo bi di leen ndokkeel si ñëw bi ngeen ñëw fii di leen gërëm di leen sant si déplacement bi vraiment kontaan nañ def lu dul sant rek. comme ni ko sëñ Touba waxee rek di sant yàlla ba yàlla may ñu fan yi ñu ko fekkee ba ñëw fii Touba ñëw fekk si Bamba sar muy sun rakk di sun xarit vraiment ñu ñëw mu teral ñu euh, du ñuy def lu du ñaanal ko yàlla yàlla bàyyi ko fii mu gudd fan ndax Bamba moom sun rakk la mu nekk euh, président ASC Pastef te boo xoolee fii xam nga ne waa Pastef yëpp a ñëw kon vraiment ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram li mun ren yàlla na ko mun déwén vraiment yéen tamit ñu leen di gërëm di leen sant ndax déplacement bi ngeen def ba ñëw fii won na ne yëg-yëg bi ak euh, fulaal bi ngeen ko fulaal léegi nag lépp luñ fi ñaan yàlla na ko Sénégal yëpp bokk ñun euh, dëkk bi naat may président jàmm may leen jàmm may ñëpp jàmm. may ma laa tudd. yow lan nga ci sëñ Bamba Bamba. Bamba suñu sama jëkkëru rakk la waaw bàmba nit ku baax la waaw eh, bàmba dañ koy ñaanal rek li ñu mën a wax si moom yëpp bari na trop mais dañ koy tënk baax na jikkoy turandoom la yor ndax màggalu tey bi lépp sëñ Bamba la te moom jikko boobu la yor dem ba tey dara jeex fi gis nga ñun ñoo nekkoon ci waañ bi dépp bërki dem ba tey mais dara jeex fi سرسارا لا سنائي وردوان بلا سفة مسخاد لي من بني ديمان أنصارا لله كل لدى أبار مكرمة من أرسال وفي أجم من سارا Euh, jërëjëf euh, soxna si ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci kàddu yooyu comme nag yéen a nekkoon nekk ci waañ wi euh, nekk na nag ay kàddu yoo xamante ne ay kàddu seede yu am solo sëñ Bamba ñu ngi lay nuyu di lay ndokkeel. Ah, maa ngi leen di nuyu di leen ziar waa Mindiss TV di nuyu seen déplacement bi di ci bëgg ci li ngeen ñu fekkee fii di suñu dal di suñu diwaan. di dalu waa waa di dalu Ndakaaru di dalu Sénégal donc euh, ñu siy bég bu baax si seen teewaay di leen di leen santaat bu baax a baax. waaw bég euh, maanaam cant rek waaw cant rek comme ñi nga ni ko sama mag ji toogoon toxoon fi waxee ko sànq rek maanaam bésu cant la ndax bés bi boo xoolee euh, noonu la ko sëriñ bi woowee. dafa dafa ne nañ ko santale ndax da koo tàmbali donc euh, d'après daal di ci woo ñëpp te woote boobu di suñu njëriñ ba tax na ñu ñëw daje fii tey Touba ci sama kër wéyjur bu góor fekk fi samay rakk ak samay mag ànd kook samay yeneeni mag xarit ak yeneen rakk yoo xam ne ñu ngi jóge biir Fatick biir dakaar ak feneen ak feneen ak feneen ànd koox ñun di ko def muy muy muy bésug cant bésug mbégte boo xoolee tey loolu rek a fi feeñ ci suba ba léegi démb sax lañ ci tàmbale waaw daaneel nañ gàtt yi waaw daaneel nag yi waaw sant fas yéene ko sante sëriñ Tuubaa ndax lool yi moom lañu sëriñ bi jàngal moom la sëriñ bi sant te ci loolu képp lañuy ne donc euh, franchement di santaat nag ndax euh, dafa am loo xam ne euh, dafa yombul ndax tey boo xoolee li fi nekk ci mbooloo di ay ndaw ay tuutang nekk ci ay mag ay boromi kër ànd ak seen njaboot ñëw toog fekk fi donc maanaam ak mbegte la boo xam ne ñun xamuñu sax fu mu tool ndax dëgg la neex na trop mun nga yor say say gaat mun nga yor say nag yor say milliards waaye nit ñi mënoo leen loué. nit ñi mënoon luwee ndax fii gisoo fi bâtiment bu extraordinaire wala wala wala wala wala wala wala leneen lu extraordinaire loo xam ne mën nañ ko mais mbooloo mi ñoo fi nekk fii maanaam dalu gaa yi la. du du invitation. fii dalu gaa yi la ndax ça fait plus de cinq plus de huit ans. ñu fiy dal. boobu tabax yi daanaka yeggul. donc fii lu fi ne yëpp ñoom ñoo ko fi def. li fi ne du fi dem tamit ci bés bi ñoom ñii ñoo ko fi def seeni koppar la. ku fi ñëw dina dina dina dina yónnee koppar laata muy yegsi te buy yegsi dina indi ndox dina indi ju dina indi fruit donc jàppal ni fii daal dalu dalu gaañ la waaw dalu gaañ la dalu dalu dalu waa fatig la dalu dalu dalu dalu dalu vraiment Fatick la bis bi jógee na Fatick fes dal boo yaay fii boo xoolee kër gi ñoom rek a fi ne mm. donc euh, vraiment di santaat ñëpp mooy li ma doon wax sànq rek fii kenn kenn kenn du luwe kenn tëddu invitation euh, maanaam yëfi gars la yëfu waaw lu ñu bokk la ñun ñëpp waaw waaw xam nga peut-être man ni ma ni ma mel dafa fekk euh, ni ma ko ni ma ko séqal la ndax euh, xam nga booy ànd ay xarit duñ la jay ànd ak say mag ñu lay wax dëgg ànd ak say wéejur ñu lay yar ci njub di lay yar ci maanaam yaatal donc day nekk loo xam ne day day day naturel ci yow ndax franchement boo xoolee ñi ma tawal ku mel ni Pape Diop mi nga xam ne tey fu ko neex dugg biir Touba waxuma la kii mais kii bu ko neexoon représenté monsieur le maire Matar Ba fépp ci biir Touba ci biir njabootu Serigne Touba Pape Cheikh Diouf mii ku ko xam xam nga ne bu baax ni ñoom diggante Touba ak siin dara doxu ci kii toog nii di Mohamed Ndiaye sama xarit nekk bokk ci njabootu Serigne Saliou bokk ci njabootu Serigne Fallou donc am fu ko neex dugg biir Touba mais ñoom maanaam dañu seq lu yàgg te doog a ñëw donc du du ma ne mbir mi ci mën a maanaam day nekk loo xam ne maanaam mooy li ma doon sànq rek léeg-léeg da ngay dem sax yow di nga si xaw a tuuti tuuti tuuti mais jàppal ne li nekk si ginnaaw moo doole te te dañ ko yàgg àndee du ci lii rek ci lu bëri. dañ ko yàgg àndee ci ay julli dañ ko yàgg àndee ci ay iit dañ ko yàgg àndee ci nawetaan dañ ko yàgg àndee ci jàng dañu koy yàgg àndee ci lépp donc ba bés bii di teew donc yàlla dogal ñu koy defee fii muy sama kër wéjur fii ci Touba. mais jàppal ni mooy lu ma la wax sànq rek euh, du du man maay royukaay bi waaye ñii ñooy ñi nga xam ne nii ñooy fexe yow nga fës. waaw di leen santaat bu baax a baax a baax di ñaan Serigne Touba defal ñu lu foo ko suñu jot di ñaan Serigne bi liñ ci def ren. ñu ñu ñu gën koo mën déwén. waaw ndax noonu la demee Serigne Touba amul tànk ginnaaw lépp day kanam. waaw ñuy santaat bu baax a baax a baax. waaw donc euh, xam nga jamono ji moom ni ko waxee rek. Euh, ñun ñëpp dañuy soññ mais soññ go soññ goo gis rek dañ si jiital suñu bopp ndax euh, doon taalibe maanaam day day day li nga xam ne moom lañ sëriñ bi digal. ndax doon taalibe mooy lu ñu mooy mooy suñu sëriñ bi yar ñu dañoo dañoo yaroo ci peggub sëriñ Saaliw mu yàgg ñoo teg ci yoonu lislaam yoonu siraatal mustaxim sëriñ bi jàngal ñu arxuraan sëriñ bi def si ñun yar sëriñ bi di ñu yóbbu ci tool yi sëriñ bi def si ñun loo xam ne nii tey mën na noo taxaw ne ñun am nañu yar donc muy yarub taalibe am nañu taalibe am nañu yarub taalibe taali bi moom ñaara ko ñaar ñaar ñaar dong ko seeg topp ndigal bàyyi tere waaw topp ndigal bàyyi tere mënoo soññ soññ bu weesu loolu lu mu rëy rëy rëy du leneen lu dul topp ndigal bàyyi tere lépp lu ñuy ñaan ci màggal gi tamit suñu borom def ko loolu yi bokk ci maanaam suñu borom teggi ko mu jóge fi ba faw waaw bu ko defee waaw mbir yi di gën a yaatu di gën a neex rek nekk sëriñ bi de bëgg gën a bëggee rek incha